مدالي الحق المبين ما للبرية bayit yi sëriñ bi da koo def ci ay barab yu wuute di ci ñaanal ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyal ak di leen bëggal ci xéewal yi nga xam ne moom la leen seen borom di xaare ëllëg mu wax ne yow suñu borom maa ngi leen ñaan mbooleem ñi nga xam ne dañoo sax ci dima liggéeyal nga fajal leen mbooleem aajo yi ñu am fii ci àdduna te li ñuy sàkku ëllëg muy aljana nga defal leen ko maa ngi lay ñaan nga def leen ñu doon ñoo xam ne dañuy am diina ju mat sëkk maanaam ngëm yàlla gu mat sëkk tënku ci ponki lislaam yi te lépp lu ñuy jëf ñu di ko rafetal maanaam di ko jëf te yàlla rek tax maa ngi lay ñaan nga defal leen ko ubbi ko ci biir ak biti te def leen ñu doon ñoo xam ne seen lépp dañ koy jébbal seen borom waxaat ko ne ko maa ngi lay ñaan yow suñu borom képp koo xam ne liggéeyal na ma wala mu ziyaare ma nga defal ko mucc àdduna ak te jéggal ko mbooleem ay bàkkaaram waxaat feneen ne ñi nga xam ne dañuy gaawtu ci di dima liggéeyal ñooñu dey seeni kër a nga ca digg aljanna maanaam ñoom ñépp aljanna lañ jëm waxaat feneen ne suñu boroom maa ngi lay ñaan képp koo xam ne liggéeyal na ma nga defal ko xéwal yu yaatu moo xam nit la wala muy malaaka wala muy jinne wala muy lu mu mën a doon ci sa xeeti mbindeef yi